quelle est votre position moom la posé question bi allez-y. xam nga euh, li muy wax nii dafay mel ne ku naan ku naan buñ bu buñ buñ euh, buñ buñ ma teree def lii maanaam luy xale yi ndax sàcc ma fenn ma quoi sàcc ma fenn ma boo sàccee dugal la ci kaso bi te boo feree ñu ñu duma la cest à loolu du ay wax xam nga moom dafa ñëw ay. Euh, li ñuy dugal ci état bi ci ay maanaam intérêt ak ay koppar particulier par un lay def visite technique un par un ñun chaque six mois ñu def ko bu dee li ñuy dugal ci xaalis non bu jamono moo neex quoi faaleen bi ñu toog fii di débat ci transport c'est ay legal ak illégal quoi <laughs> non àdduna dafa doy waar ñun ñoo gën a bëgg avancement parce que technologie àdduna bi dafa dem. mais dafa nag da ngeen di siisu quoi. non non siisu c'est normal du ma ko du ma ko daw. xam nga ah. dama la wax li tax ñuy siisu. Mm. parce que tamit dafa neexul yow sa métier mii. Mm. am na ñoo xam ne suñ ko doon mbubboo dem ut carte professionnelle te mosuñu koo def fenn di dem di doxee seen métier bu ñu ko jàppee mun na nga usurpation de fonction. Personne n'a le droit de porter une tenue d'un policier or que tu n'es pas un policier c'est un délit kon képp koo xam dafa bëgg a nekk de def transport en commun da ngay jaar ci yoon wii bañuñu ko. mais ñoom loolu la ñu bëgg ñoom. non non non non non defal ndànk ne da ngeen bëgg ñoom ñu toog. ban seen jox ko non non non non bëgguñu loolu non non vous n'avez pas compris. bëgguñu loolu c'est-à-dire ñoom moom laa lay wax sànq koo tëggloo or mu rax përëm bi muy ñëw ñoom bi ñuy dugg Sénégal. particulier amutoon mosuñ leen ci dugal. parce que dañoo bëggoon a installer woo taximaan yi. et puis am na si ñoo xamante sax livreur lay livraison lañ doon. non ba bañu ma loolu. man mii damay soxla dara woo cek cek mu defal ma ko taf taf. ci seen ci seen. Euh, non non non non cek cek moto. moto mu defal ma euh, benn livreur taf taf parce que ni mu ko mënee man peut-être toog naa mënuma dem. Mm. yooyu am réew mooy doxee noonu bañuñ ko de. mais c'est-à-dire ni ñu koy defee illégalement boole ñoo xam ne bokkuñu te waruñu bokk nag en aucun cas mooy particulier bi warul def transport en commun comme kalandoo bi di daw géejawaay ñëpp xam ne le calando c'est un moyen nécessaire banlieue bi ñoo ko soxla mu am benn portable application heure bu ko neexee dugg heure bu ko neexee génn. comme war gaynde bi aussi yi jógee est-ce que comprendre nga musuñu bañ li ñuy def parce que technologie bi moo avancé àdduna bi moo dox. mais dañ ko tegu ci yoon ba pare dem kii dawal dem wuti livret de conduite livret mooy tax yow ñu xam ne yow taximan nga te livret de conduite xam nga sànq maa ngi koy dégg mu naan am na étranger yi euh, parce que euh, sénégalais yi ñu ngi beneen dëkk suñu leen privé li ñuy euh, étranger yi def fii mun nañ ko def suñuy doom feneen bokkul gamoo gi dem fa gamoo boo amul nationalité sénégalaise ñemoo dawal taxi parce que livre de conduite dañ lay laaj et cetera ak euh, ak casier judiciaire. nationalité non non c'est casier judiciaire balaa nga am livre de conduite laa wax. non da nga ne Gabon soo fa demee. waaw par exemple Gabon boo fa demee. Hmm. parce que amoo nationalité gabonaise. Ah, est-ce que comprendre nga parce que da ko dafa am liggéey yoo xam ne dañ koo réserver pour les. doomu dëkk ba les nationaux waaw dañ leen ko réserver parce que am réew nag dafa am nu muy doxee du ku ñëw rek nga privé ko lépp mm. doxewul noonu bañuñu ku def transport Sénégal suñ sañoon xoolal mun ñu mel ni ñoom te am na ñu mel ni ñoom suñu suñu biir mm-hmm. yaa ngi dégg mais ñoom daf ca am ñoo xam ne walla wallahi azim li ñuy joxañ baaraam ci taximan le pur man du client yab naa ko xam nga lu ma wax man euh, gars yi dootuma dugg ci ñoom ma ne ko ndax lan mu ne ma da nga leen di woo ñu ne ñu ngi fii xoolal di tere ne. nga taxaw di xaar nga taxaw di xaar ba pare mu ñëw nga ne ko euh, euh, parce que prix bi day fixé ci sa portable ak portable am mais nga ñëw mën na doo fay loolu lii ngay fay. ça c'est vrai. ay ay ay clients ñoo koy wax. Mhm. te ma beneen affaire mooy dama lay laaj. Euh, ñoo ngay laajante di. waa non c'est parce que am na ci loo xam ne moom rek moo ci mën a tontu. ayca occasion la euh, ma ma ma toog ak ku mel ni comme moom mi mi ngi ci biir. parce que ñoom ñi ñi woon ci terrain bi ñuy recruter taximaan yi man boo ñëwee naan ma ñii ñoo ma yónni doo àggale. man du ma la may nga àggale war dama naan la balaa ngaa wax nga fay mu ba pare. ayca loo koy laaj. njëlbeen bi si njëlbeen bi gars yi rafetlu woon nañu euh, structure boobu mooy taximaan yi parce que gisoon nañu seen bopp. merci. taximaan yi suñu bañ application yi bëgg nañ ko non dëgg laay wax de bëgg nañ ko parce que bëgg tole gisatoo leen seen merci du fala moom laa lay wax nii non moom non du question non c'est que pas compris ma wallaay la wallaay la azim ngi gis suñu bopp ah. xëy na soppeeku na nañu waxante dëgg. wàññeeku na kaw non si c'est normal mu wàññeeku. parce que li ci dugg te bokk ci woon moo bari. te gën na wàññeeku parce que am na beneen méthode bu ñëw encore <laughs> tegu amul problème parce que yàlla kum bi yàlla képp ku ne yàlla suñu borom moo ne képp ku ma dagg sa géej maa lay jox looy dundee ragaluñu loolu.